spectateurs ravi de vous retrouver comme tous les soirs ci biir Sen Show donc Sen Show nag émission nekk émission bi nga xamante ni moo leen di wéttali waaye surtout di leen jox le meilleur de l'information comme tous les soirs rek ma ciy ànd ak Alaaji Ndiaye Dos Alaaji ma lay nuyu bu baax a baax waaw maa ngi lay maa ngi lay fay mhm. euh, am na kenn ku ne ma lu tax boo nekkee ci plateau bi ngay wax sa sa jarbaat euh, say consoeur lañu ak ay say say say collègues man leen samay collègues lañu waaye dafa am lu jiitu collègue bi <laughs> mooy samay jarbaat sama jarbaat la moo jiitu collègue bi waaw sama beneen jarbaat ñëw moo moo collègue bee ko jiitu waaye ba tey dañ koy ñambaasaal rek moo bële mun noon benn muy Fatoumata Diop ak Ndeye Dime euh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu ah di nuyu téléspectateurs yu la chaîne leader rawatina ñi ànd ak ñun ci émission bii di euh, Sen Show mhm. euh, tey nag ñu am gat gan goo nga xamante ni du gan de gang la waaw moom xam na comme xam na wolof. Uh-huh. après dina faram-fàcce gàng mooy lan. voilà. Uh-huh. kon xanaa waaw mais bu ñu ko wanee rek gars yi dañuy xam kan la jaxate Diakhaté honorable député Moustapha Diakhaté bu ñu neexee ñu ne monsieur le ministre euh, Moustapha Moustapha jaxate bokk parti bi di APR uh-huh. ñu fas yéene waxtaane nag situation socio économique maanaam situation politique sociale économique environnementale pétrole et gaz. waaw tolluwaayu allah ji kon ni ko waxee rek. bu ñu ci jógee mhm. Babacar Fall Gradec. parce que euh, xam nga comme ñun dañuy topp actualité. Mhm. te te tey li ñëpp di wax moom moo jëm ci wàllu caution bi. foofu dafa am. Mhm. lu leerul lu fi nekk benn 10 millions benn 20 millions ñu ngi koy wax kenn xamul c'est l'ensemble des commune benn commune wala benn département l'ensemble des départements yooyu yëpp leeragul mais de toutes les façons Babacar Fall ak euh, Fatou Abdou incha allah rabi dinañ ci ànd ak ñoom euh, ngir nag mën a faram fàcce loole parce que itam ci waxtaan wi lay bokk incha allah. ci waxtaan bi lay bokk donc wax nga ko nag Fatima Diop moom tamit dafa daal di rejoindre li nga xamante ni mooy seen show kon Fatima ñu di la nuyu bu baax a baax dalal la jàmm ci plateau bi. merci beaucoup Marianne merci également ak mbokku téléspectateurs yu Sen TV yëpp di nuyu comme ni mu ko waxee sunu nijaay euh, Ndiaye Dos di nuyu honorable député également Moustapha Diakhaté di ko dalal jàmm ci biir plateau bu seen nuy nuyu également Ndeye Dimbé Ndao ak mbokku téléspectateurs yu Sen TV yëpp di leen wax ne euh, comme d'habitude rek euh, seen show li gën a fës ci actualité ak nu mu mënti doon tolluwaayu réew mi ak lépp tey ji euh, moom lañ leen fas yéene rek daal di jox ci biir plateau bi. ayca kon ba si kanam yi tuuti lay doon Ndeye Dimbé. waaw naa la waaw Myriam maa lay <laughs> maa lay bu baax di nuyu Fatima di nuyu Ndiaye Dos ak suñu gan gi honorable député. Moustapha Diakhaté di nuyu tamit euh, ñi toog seen kër jamono ji di ñu seetaan ci émission bu am solo bi di seen show Myriam. ayca kon nag alaaji ni nga ko waxee rek noonu la tey nag dinañ fi dalal koo xamante ni la mu nekk koo xamante kenn dootu ko présenté donc sénégalais yëpp xam ko muy monsieur le ministre Moustapha Diakhaté ñu am plaisir bu mag a mag recevoir la fii nii ci plateau seen show. auzubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum ba suur ba reer ndaw <laughs> jëme a ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte dellu si waat mooy lii euh, sëñ Doos wax sànq ne fii moom duma fi gan gàng laa fi waaw Sénégal miin nañ ma ci émission bi kër gi sama kër la ba ma leen nuyoo ba noppi maa ngi nuyu sama rak mooy bugaan gi mi nga xam ne mooy yilib kër gi nuyuwaale ci ñëpp groupe bi groupe des médias di nuyu Sénégalais yi nuy seetaan tey ñaan yàlla subhanahu wa taala mu baaxee nu ba leen fi wax amal njëriñ réew mi allahuma amin donc di leen wax ni rek également di mën a am le journal de la CAN bu si kanamee tuuti ñu ànd ci ak Mouhamed Diop waaye tamit le flash de l'information di ko mën a am ci biir seen show ñu ànd ci ak ay chaîne li ñuy def léegi-léegi dañuy daal tibbi seen show léegi-léegi ci wàllum actualité voilà jaajëf euh, sëñ Moustapha ñu ngi lay ñu ngi lay gannaaw bi ñu la bi ñu la nuyoo dañuy daal di dol dellu rek ci le vécu quotidien euh, sénégalais xam naa ni waxtaan wi moom wàllu koom la wàllu économie la euh, wàllu koom mooy économie ba tey mm. sociale wàllu politique bi maanaam daal ëppoon lay nekk ñu fas yéene ko ànd ak suma collègue yi nga xamante ni macha allah ñu ngi def liggéey bu bu am solo mm. loi de finances rectificative dañu ko def du gulet ci ci Sénégal mais euh, dafa am lu ministre de l'économie et des finances en son temps avant ñu koy xaaj doon wax euh, que ni Sénégal dafa am bénéfice euh, sept cent nangam milliards boo nga xamante ni am na deux ans ou un an et quelques on se retrouve ci benn situation boo nga xamante ni on est obligé ñu yokk yenn prix yi pour am benn gap boo xamante ni dañ koy dañ koy combler donc loolu c'est un aveu d'échec wala boog itam ba tey dafa bokk. Euh, ci réforme ak restructuration yi nga xamante ni ñu ngi koy def au sein de l'attelage gouvernemental. Euh, jërëjëf c'est vrai euh, loi des finances rectificative bi li liñ ci gën a seetlu mooy am na wàññeeku gu ci nekk waaye li ma jàpp mooy du loo xam ne dafay dafay crise wala lu mel noonu parce que ci affaire tax la ak yu mel noonu ñu xool loo xam ne jàpp nañ ne duñ ci mën a jot parce que budget moom prévision la maanaam danga naan lii bëgg naa ko am ci at mi su ma amee dinaa ci def lii xëy na doo am li nga li nga pare waaroon li li gën te muy nekk vérité budgétaire mooy nga wàññi ba tolloog li nga xam ne mën nga ko am parce que sinon li des rek day nekk ay lii lim bu rëy jàpp naa ne amul njëriñ mais li wér mooy Sénégal moom ci wàllu koom am na taxawaay bu mu taxaw am te kon nag. ba léegi jafe-jafe yi des na parce que bu ñu ne lépp ngi dox lépp baax na kooku buñ ko waxee Sénégal yi ñu dégg duñ ñu respecté te man nag daa bëgg nit ñi respecté samay wax donc kon euh, man euh, réew mi réew sous-développé ba léegi xëy na prévision yi amoon moom lañ jàpp ne duñ ci duñ ko mën a atteindre moo tax ñu euh, wàññi ci mu am wàññi ko ci budget li ci li nga tudd sànq ci wàllu yokk yi aussi pour le moment li ma dégg ñu di ko wax mooy Euh, ay yokk-yokk yu am ci euh, pétrole bi ak euh, ci bitim réew moo indi tey ñu indi yokk bi mais yokk bi damay bañ mu mu mu tax ñu fàtte fi ñu jóge parce que quand même 2012 ba léegi pratiquement les prix du Séné au Sénégal dañ ko bloqué ci yëpp nag rawatina ci bu dee gaz gasoil ak ak essence waxuma bloqué mais dañ ko wàññi ñaari yoon. kon wax dëgg yàlla gouvernement bi doxoon na jéego yu rëy ci mel noonu léegi nag euh, bu demee ba jàpp ne yokk gi moo gën ci euh, euh, maanaam portefeuille yu état bi man loolu gisuma ci lu di ko rafetlu am te kon nag lu yokk moom lu yokk la parce que nit ñi buñ seen dépense bu yokkoo te na la ñu waroon na jot jotuñu ko am dana métti ko ci ñoom kon li nga xam ne moo war gouvernement bi mooy expliquer nit ñi lu tax yokk boobu ba ñu xam ne yokk bi li dafa gën ci ñoom parce que damay wax toujours damay nettal toujours kilifa gu diine ku tudd sëñ Cheikh Gaïndé moom la ca gën rek mooy na ko nit ñi attan te boo ko defee ba noppi nga wax leen fa muy dugg loolu jàpp naa ne état loolu daf ko war warloo askan wi loolu nag ministère bi nga xam ne moom lañ mais Moustapha est-ce que mbir mi amul ay naxee yoo xamante ne am ci parce que ñun mënuñu comprendre oui ngeen dem fële ca France tëgg fa dafa Mumbai dafa nangam kañ am nañu sept mille milliards oui en moins d'un na ngeen dem ci ay loi rectificative yoo nga xamante ne ay deux cent nangam milliards ngeen soxla waaw xam nga xam nga mais non cela veut dire que ni kon am na lu sellul loo nga xamante ne yéen war ngeen ko mën a leeral ci seen doxalin xam nga sept mille yi c'est pour programme pour financer un programme le pse la PSE2 du du budget 2019 du budget benn exercice kooku ay at la juróomi at na ko donc kon bokkuñu dafa ma li nga xam ne ñun moom la Sénégal soxla ci wàllu pse li mu soxla ci alal dig nañ ko lu ko waaye nag bul jàpp ne tubaab yi bu ñu la nee. non mais non mais. am nañ non non mu am nañ parce que bu fekkente ne nit ki da ngeen nga séq nga ne ko damaa soxla nangam mun la dinaa la jox nangam li nga jàpp mooy lim la dig am nga ko parce que su boo demee war koo jëlee da nga ko jot lii nag day loo xam ni budget Sénégal bi la ci la wàññi gi laal mais PSE2 liñ ci war a financé wàññiwuñ ci dara parce que lañ ci soxla woon am nañ ci lu ko kon buñ ko tuddee. budget bi bu wàññee ko est-ce que amul problème priorité boo nga xamante ne am na parce que on nous parle de terre boo xamante ne ay mille nangam milliards lañ ci def bon on nous parle de yenn yenn tali yoo nga xamante ni. Euh, xam nga pratiquement non mais c'est que. Ah. dafa am problème priorité boo nga xamante ni yéen da ngeen koo am. xam nga xam nga Alaaji Ndiaye Dos. Euh, président de la république buy def dafa am nu ñu koy natte. maanaam dañuy seet ba xam ndax li mu def am na yoon may na ko wala mayu ko ko ci loolu ñu xool ba xam ndax li muy def am na njëriñu réew mi wala amul njëriñu réew mi jàpp naa ne yoon may na président de république mu def ay projet yu mag ndax projet yooyu amal na njëriñ Sénégal wala amalu ko jàpp naa ne gis nga Mamadou Ndiaye Dope euh, yàlla dafa dogal Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne balaa yàgg dana am pétrole dana am gaz. xaar màggale rek xaar màggale rek ma jàpp ma jàpp ne ma jàpp ne si vingt cinq ans ba jëm trente ans yi maanaam ñiy dem Dubaï ak Qatar dëkk yi ci des di leen na mel yàlla mën naa dogal Sénégal dem ba àgg foofu loola nag jàpp naa ne dañ ko war a waajal. waajal ko ci wàllu tëli waajal ko ci wàllu fajukaay waajal ko ci wàllu dund loolu képp koo xam ne dangaa ngaa jàpp ne ci priorité rek nga war a rek régler maanaam li ne këtt na jonn rek ci la sa jàmbaar war a yem boo lëggee da nga mën a yaafus parce que nag. monsieur le ministre est gisoo ni gouverner c'est prévoir. ci lañ nekk parce euh, dañu seetlu assemblée nationale saa bu ñu daan voté budget bu musaana yokku député da leen di gis ñuy tàccu di yuuxu ni voilà gis ngeen ni. Euh, budget bi yokku naa ne tàcc yuuxu du li nga xam ne moom la xaar ci moom mooy li muy li ko fa nekk représenter les askanu askan wi euh, mais mais saa bu budget bi yokkuwaan da leen di gis. mais ne dafa jógee ci 500 milliards dem ba 4000 milliards. kooku jàmbaar la parce que budget bi li ci ëpp. <laughs> ci su ressource proprement ay douane moo koy indi wala impôt. <laughs> li lu ci néew mooy lu jógee bitim réew kon Sénégal def na ay jéego. maanaam <laughs> budget bu rëy bi njàmbaaru waa Sénégal la. parce que budget bi Sénégal yi ñoo ko mais dama ni est-ce que budget boobu noonu comme temps yi mu doon yokkoo li euh, député yi doon kontaan di ko wax fu ñu toll est-ce que gisuñu gisoo woon ni danañu waxoon président ne ko ah budget bi kat mi ngi yokku est-ce que duñu sóoraale budget nga budget yi moom amuñu maanaam assemblée nationale laay wax amul capacité technique pour xam yu mel noonu parce que assemblée moo tax loolu amuñu ko mënuñu voté ba pare je ba pare ñu ne maintenant yow di ma la wax budget prévision la maanaam prévision yi boo demee rek ba mënta sotti mais li li foofu laay waxee non xam nga la vérité budgétaire dafa bokk rigueur budgétaire daa bokk ci bu fekkee li nga prévoir wóor na ne mënoo ko mënoo ko am mais nga tël soit ci nit ñi voilà waxal lu ne lii ko mën lii ah, buñ ko mënul def c'est pas donc ah, ah. honorable donc bu ma la déggee ci li nga wax léegi est-ce que tam lajj-lajj amul ci euh, li nga xamante ne moo di doxalinu gouvernement bi bu ñu xoolee ñu ngi wàññi nañ li nga xamante ne moo di budget bi ñu ngi wax ay tëju yenn structure rek yu nu mel est tey ji lajju ñu ci côté boobu tam xam nga defaruwaat maanaam defara sa rationaliser rationaliser ak lajj du benn mhm. kenn ku ne xam na ne wax dëgg yàlla boo xoolee boo xoolee bi boo xoolee budget Sénégal soo xoolee budget Sénégal soo xoolee budget Sénégal comp bu baree bari mi ngi jëm ci salaire yi beneen comp bi jëm ci budget de fonctionnement yan salaire salaire fonctionnaire yi maanaam li tàmbali ci président de la République ba ci ba ci ba ci planton bi loolu mooy mooy mooy agent de l'État yi li ci def mooy jëm ci fonctionnement bi maanaam li ñuy defaree bureau yeeg jëndi jëndi woto ak ya ca des la ca des beneen xaaj ba ca des mooy li jëm ci fay bor yi ak intere bor yi su ko defee tuuti moo ci des lu war a jëm ci askan wi. léegi ci côté salaire yi. xaaral maa gële bu fekkente ne da yor réew te bëgg nag wax dëgg yàlla waa réew mi gis ci seen bopp war ngaa fexe ba naam ngay fay say fonctionnaire war ngaa fexe ba fi ci fonctionnement maanaam fonction publique mën a liggéey. mën ngaa war ngaa fay say bor mais war ngaa wut loo xam ne aussi dañ koy prévoir pour askan wi mën cee jot seen wàll. voilà loolu mais tey jii euh, su ma ñi nga xamante ne ñoo di les fonctionnaires de jàpp nga ni mille milliards mille milliards je pense bu ñu ko bu ko boo ko xaymaa. ci li ñuy fay ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, fonctionnaire de l' état est que tey jii tamit ba tey du ma ci li may wax rek côté euh, gafa réew mi dafa am lu ci. non xam nga le constat ñëpp def loolu président la même junj na ko ci le premier mai mu indi woon fi coow mooy lu ëpp ci budget bi mi ngi jëm ci salaire ak fonctionnement lenn li dem ci fay bor ak intérêt yi tegu ci bor yi su ko dee boo xoolee daanaka dara du ca des lu war a dem ci askan wi te nag Sénégal Sénégal ñëpp a ko bokk loolu dafay yàgg ci réew mi gis nga depuis indépendance ba léegi. soo xoolee Sénégal boo ko xaajoon ñaari xaaj wenn rëdd woo xam day départ ndar ba ba ngay dem Kaolack li ko féete sopp soowu li ëpp ci alalu réew mi foofu lañ koy sotti ci wàllu infrastructure ci lépp la nekk maanaam tey boo xoolee Dakar daanaka lépp la daje su ko defee biir réew mi daanaka ñu fàttaleen même boo ñëwee ci dëkku dëkk yu mag yi dëkku taax yi dafa am ñoo xam ne xëy na yàlla baax na leen seen loxo jot na seen garaaw mais ñu ci bëri seen loxo jot seen garaaw ay pauvre lañ loolu am réew daf ko nag maanaam la fracture territoriale bi am ci dëkk bi mu am Sénégal goo xam ne yàllaa ko bind ak Sénégal goo xam ne yàlla ko bind ak sénégalais yoo xam ne yàllaa leen bind ak sénégalais yoo xam ne yàlla leen bind loolu suñ ko ci bàyyee insécurité ñëpp lay doon am réew. maanaam vous avez essayé inégalité sociale boobu ngeen ngeen réglé ko mais vous avez échoué je donne un exemple. bien sûr mi moo gën a yomb et dans les grandes villes mètre cube bi ay 150 la ñuy fay et dans les coins les plus reculés du Sénégal 400 et quelques la ñuy fay mètre cube bu nekk et le président de la République bi mu ñëwee loolu slogan la woon ci moom. Ah, mais eh, donc Mamadou Ndiaye li amul loo xam nga dama la wax sànq dama ni ma ko waxee xëy na dama koo lépp ndax dama ne Sénégal yi yàlla bind ak Sénégal yi yàlla bind. effectivement bu fekkee da nga dëkk ci réew terre ci da nga ami goudron yooyu dox yooy dox da nga am fu ñuy faje op barabu jàngukaay yi gën fa la ñu nekk maanaam faj fajkat yi gën fa la ñu nekk euh, ndox mi gën a neex gën a yomb fa la nekk loolu mënta wéy fokk ñu fexe ba sénégalais bi nga xam daal nekk ci biir réew mi di ab baykat wala muy ab sàmmkat moom itam mu yëpp ni ci réew mi la bokk maanaam ndox mu neex ak ci moom tëli ak ci moom loolu yëpp dafa day loo xam ne loolu nag président la teg na ay jumtukaay yoo xam ne jàpp naa ne bu ñu ko doxalee pendant cinq ci kanam boobaa Sénégal daañu gën a gis seen bopp. ci réew mi mais mais est-ce que jumtukaay yooyu efficacité ak impact bi ñuy xaar ci développement bu Sénégal euh, am na ci. waaw xam nga loolu moom. waaw loolu tontu. question bi daa am ku ko tontu ba noppi. mooy le peuple sénégalais bi joxaat Macky Sall 58 pour cent. ñoom nee nañ ko benn. Barthélémy Dias de nee na waaw déglu ma rek doon dama ne lay waxal Sénégal lay wax sama ne Sénégalais yi nga xam ne ñoo ko ne. li nga def 2012 ba foofu ñu ne ko li nga nu dikk deux mille dix neuf ba deux mille vingt deux mille vingt quatre d' accord nañ ci kon nag Sénégal yi ginnaaw tontu nañ la yow bu la neexee nag nga bañ a gëm wax Sénégal waaye Sénégal moom nee nañ Macky Sall li mu def góorgóorlu na deful lépp nag yëf yi des na buñ jàppee ne nag fii ma ngi mel ne danga nga na ajjana déedéet boobaa ñu ngi nax suñu bopp di di di di di tooñ Sénégalais yi liggéey bi des na naam nag góorgóorlu nañ honorable ñi ngi wax rationalisation wàññi yenn budget consulat et cetera mais gisoo ni tey ji boobu noonu ca présidence la war ak budget bi am foofu ci présidence bien sûr président kay bu nee day rationaliser ci boppam la ko war a tàmbale loolu kay moom boo ko laaj loolu rek laa ci mën a tontu. parce que nag nit ki bu fekkee da ngay jàngale. yow yaay joxe exemple. son exemple ci moom lañ war a jë jëkk moo ko war a jëkk joxe tegu ci ay ab gouvernement ay député am cest que ñun ñëpp ñi nga xam ne tey dañoo ànd ak moom di liggéey ñoo ko war a wallu ci loolu ba sénégalais yi xam ne li muy maanaam bu fekkee même da leen teg loo xam ne métti na leen nañ xam ne la tax mu teg ko lim mooy defar seen ëllëg. loolu rek la ci la la war a tekk nañ ko ah, comprendre noonu waaye du ay affaire sonal nit ñi déedéet parce que nag koo xam ne pendant cinq ans daanaka sept ans prix yëpp da nga ko bloqué dara yokkuwut ci Sénégal pratiquement suñ demee ba tey mu ne day yokk ci li parce que la mu wàññi woon cent franc la wàññi woon mu wàññi ci tey jii quatre-vingts franc war a soixante franc wax dëgg yàlla ba léegi mi ngi góorgóorlu président sànq yaa ngi koy wax que ni euh, par rapport ak région yi foofu ñu tas ko pour ñeneen ñi ci région yi ñu mën cee gis seen bopp gis seen bopp am nañ ay programme ñu teg PUMA mu ngi fii PISRA mais bu ñu que ni amuñu ndox ñenn ñi ñu ngi wax mais tey jii est ce que loolu tey jii doy doy na pour euh, askan ah, soxna Diop soxna Diop xam nga yow da bëgg Macky Sall def loo xam ne yàlla defu ko déglu ma wax la rek déedéet <laughs> xam kay xam nga xam la daanu daju suuf daanu daju suuf waaye ku wax sa digganteeg sunu borom sa borom xam ne jéego yi état bu Sénégal dox ngir waa kaw gi yëg seen bopp ci ne ci réew mi lañ bokk diggante 2012 ak léegi su ko doon def 1960 ba 2012 Sénégal kon àll bi du mel nii mu mel effectivement ñu ngi góorgóorlu waaye nag li mu góorlu des na. moo tax ma jàpp ne dañoo war a gën a takkaat suñu ndigg gën a takkaat suñu ma gën a góor góorgóorlu ba sénégalais yi fu ñu mën a nekk Sénégal yëg ne li nga xam ne état bi moo ko yor ñu ngi ciy gis seen bopp. kon effectivement àll bi ba léegi des na ay kon man nitu àll laa kookoo laa ci àll bi laa dëkk xam naa ne ba léegi suñ dund gi métti na boo gisee sax xëy na ndakaaru fees dell àll bi neexul rek gis nga bis bu ñu waa àll bi waa ndakaaru ñee leen léegi waa ndakaaru ñooy taxu dund fekk si waaye nag fi ñu toll daanaka ñëpp dañu naan réew bu xawee métti bu métti da dem ci capital wala nga dem fa nga dëkk ginnaaw fa nga dëkk moom xëy na boo bay boo dem baykat ñetti weer ngay bay toog juróom-ñeenti weer ci naaj wi ci kër gi di waxtaan ak bu ko defee nga ñëw Ndakaaru mais di feet del kon en réalité loolu président dëgg def muy xeex maanaam li ñu bëgg indi muy li bëgg indi muy équité territoriale maanaam sénégalais fu mën a nekk Sénégal mu yëg na ci Sénégal la bokk jàpp naa ne bokk na ci sax loo xam ne waa Ndakaaru ñoo ko ci war a gën a jàppale parce que bu loolu sottee léegi mbedd yi féex voilà euh, mu ñëwaat toujours rek ci budget présidence boobu noonu parce que lu ma yittee la te nit ñi yàgg nañ ko wax aussi c'est vrai que d'accord nga mais te est que gis nga ni euh, li am présidence jaadu na lan ci lan moo fa lu jaru ah train de ah, train de vie xam nga xam nga nag. train de vie bi xam nga Sénégal. train de vie bi ah, defal nag non non xam nga man dama bëgg. soo ko da ngay commenté boo commenté ma bàyyi rek sa commentaire boo mu posé question ma la République président bi jëm ci fon fonctionnaire yi fonctionnaire yi ci la bokk. man mi député yi ci lañ bokk. magistrat ñëpp ci nga xam ne état moo leen di fay weer liñ leen di fay weer ak li ñu leen di jox loo xam ne mooy seen barabu liggéeykaay yi dafa ëpp dayoo par rapport ak askan wi nga xam ne gisagul d'accord naa li nga wax euh, honorable mais xam nga bi président di recevoir yaa ngi koy wax sànq ci remise de cahier de doléances yi président ci boppam moo ko waxal boppam kenn ni sax nii mënuñu ci continuer bu ñu continuer tout sax dañ dem ba dootuñu jëndati ay oto donc mi ngi fekk si ci train de vie bi ma lay wax bien sûr loolu d'accord nañ ci xam nga euh, loolu ngeen tuddee train de vie de l'État nga xam ne maanaam ay oto yu bari oto yu cher bon dégg naa président di ko di ko di yu bëri ministre conseil yu bëri oui oui oui cest à yooyu yëpp dafa bokk ci li ma wax rationalisation ci ñun ñun ñuy def politique ci lañ ko war a tàmbalee cest à ñun ñoo war a jël mesure yoo xam ne bu ko sénégalais bi dundee dina xam ne li ko li nu soxal dëkk dëkk mooy defar parce que man damay jàpp toujours ne dama koy wax et loolu laa gëm mooy président Macky Sall faluñu ko président bi ngir muy defar affaire waa APR ko fal ngir ne dafa fekk réew moo xam ne nit ñi dañu sonn mu war leen a jële ci coono boobu jëmale leen ci beneen dund bu gën a ëpp bu gën a mucc ayib. mais le contraire moo am. déet. si le contraire moo am. naka bi maanaam. le parti avant la patrie. waaw ah, mais loolu loolu la ñuy dund bu ñu xoolee mbiru pétrole bi xam naa dinañ ci dugg ci deuxième partie bi après journal de la CAN bu ñu xoolee ni mu demee bu ñu xoolee attelage gouvernemental bi euh, nedd ko bandum bu gars yi dox man du ma ci sori du ma ci sori mais euh, euh, fay sàll ak leneen ak leneen yoon ñaata fay sàll non mais mu loolu aussi au niveau de la présidence am na ñu fa nekk am na ci yeneen kii nan la tudd yeneen agence yoo xamante ni am na ñu fa nekk c'est-à-dire en fait le président dit entre deux tours en 2012 euh, que ni on va gérer autrement réduction des des nangam ak nangam euh, xam nga ñu ñëw ci mbiru Karim Wade ñu ne c'était une demande sociale ñëpp ñëpp dem ci on a comme l'impression que ni président Macky Sall bi woon ci Macky 1 ak acte 2 bu bu Macky Sall comme yàlla ak yàlla yi ñu ngi koy waxee. je sais pas. Mhm, dinañ ci ñëwaat président donc nag dañuy téye foofu noonu rek tontu bi daal di dem fi nga xamante ni mooy le journal de la CAN ànd ak Mouhamed Diop Mouhamed ma lay bu baax baax. Ndeye Myriam maa ngi nuyu Ndiaye Dos ak sa plateau di honorable <laughs> mais Mouhamed. Eh. Sénégal dafa mel ni suba lay joué incha allah ci huitième de kii waaw suba la suba la nag eh, wax dëgg yàlla suba la suba te eh, équipe bi vraiment wala ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di xaar bu baax a baax. ci mhm. seen seen prestation suba incha allah. kon dama lay bàyyi rek nga daal di wax rek lan moo gën a fës